te di jaale Ahmed waa Sénégal yëpp Ahmed jàpp naa ni mënuñu wax ci moom loo xam ne ni def na ko ba wax lépp ndax nit la koo xam ne saa su xëyee ci social lay dox lépp lu muy dox ci luy dimbali doomu aadama ci lu koy yokk la am nañu naqar am nañu tiis Mbacké am na naqar am na tiis Sénégal am na naqar am na tiis donc ci turu famille Lom yëpp ci turu Baye Lom di sama papa ci turu maire Awa di sunu yaay ci turu Mariama Lom famille Lom yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bi rafet na. Ameth nag el nit la koo xam ne maanaam wax démb dafa am ku wax dara aéroport nee na dañu waxoon ni bi fi yonent bi jógee alxuraan dootul wàcc waaye nee na démb alxuraan wàcc na ndax Ameth ku mu yeddul kenn dootul a yedd leneen dootu la yedd ndax jëmm ji ni mu meloon jëmm ji li mu amoon. jëmm ji ni mu meloon ci doomu aadama yi ni mu doon dimbalee doomu aadama yi ni mu doon def ci social simple nag nit la koo xam ne yor lu dul jeex te woyof toy mënoon diis gann te woyof tol xeebul kenn xeebul xalaatu kenn kon donc vraiment ñu ngi koy jaal waa Sénégal yëpp di ko jaal waa Mbacké di ko jaal waa waa waa Sénégal di ko jaal surtout waa Daaru Salaam fi nga xam ne fii lañ ko andi tey fas yéene ko fi fas yéene ko fi denc. dëkk. waaye réew mi ci boppam ñoo ñàkk tey koo xamante ni ku naqaree remplacé la ndax xam naa ci moom ak njullite ku téye la ku yaru la ku bari kersa ci nit la te amal njariñ ñëpp euh, depuis bi ma nekkee Jurbel ci convention di Bawol man ak ñoom Bassirou bala ñoom Pape Fall ay mbuti lépp loo xamante ni ñu ci daan nekk di ci yëngutu ca muy njariñu ñëpp loxoom daf ci daan dugg ca du ci boolee wax bañ ne ba moom bu lay defal sax ñaaree du bëgg ay ngërëm wala nga di ko leeral waaye nag eh, yàlla daal moo ko fi indi defal ko li ko li mu ko defal ñu koy ñaanal yàlla na fi mu jëm gënal ko fi mu jóge yàlla na yàlla sàmm ak njabootam sàmm ay soxnaam ndax ñaareel bi sax ñoo dend kër yaayu soxnaam di suma wërëree soxna moom itam xale bu baax di moom lu mën ci dimbali dëkk bi ak waa dëkk bi nga koy def itam te boolewu ci benn coow yàlla na yàlla yéer ak yére yi dool yërmande ci kawam ñu ngi yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla teg loxoom ci njabootam gi barkeel njaboot gi mu fi bàyyi bari munu néew nanu waaye yàlla na ci yàlla def barke yàlla sàmmale ko njabootam bi bàyyi fi caana mi nga xam moom mooy soxlaam bàyyi fi man den jaañ bàyyi fi ñëpp ndax euh, Ahmed Amane nit la woon koo xamante nii kenn ku ne da nga naan roy ci moom wutul woon ay garde corps wutul woon it tolluwaay fu muy wone ay nit di dem di wanawu Ahmed musul wanawu Ahmed lu mu am bokk na ko doomu aadama yi bu milliardaires yi ne woon ci réew mi yëpp defoon ni Ahmed Amar kon sénégalais yi duñ jox dal wutul ko wutul dara nit yàlla baaxal la woon jërëjëf daf ma yar Ahmed moo sama grand frère Isma Dioum ñoo daan am Ahmed may yar ma nekk ma xale bu ndaw Ahmed màggal bala moo def dara bala moo woote sax am bu mu bala ñu demay teel a ñibbi Dakar damay teel a ñibbi di nit ku baax Ahmed musul wutub garde corps Ahmed il est sympathique Maurice Ahmed Ahmed daal sëñ bi mooy boo ne Sénégal ñëpp ko ñàkk Ahmed ñëpp ñëpp daan defal tam Ahmed bu masaa ñëw sax bu toogee moom nit ñee bokk Ahmed c'est un homme sympathique et modeste un homme discret ku complexe que yàlla na ko yàlla yërëm te yeexanu dëgg la liggéey naa ak moom fukki at ak juróom-ñaar bi may yegsi ci moom maa ngi am ñaar fukki at ak juróom-benn doon jeune ingénieur polytechnicien fekk ñu doon Euh, waxtaan mu bëggoon benn compresseur bu mu def ci usine am ci noonu la ñu xamante bi ñu waxtaanee ba pare mu intéressé wu sama profit ni ma ah yow comme polytechnicien nga te yàlla def ni tamit nga def formation militaire rigueur bi ma bëgg ak xam-xam bi ma bëgg dinaa mën ànd ak yow pour lii nga xam ni moom laa yëkkati ñu jëmale ko kanam bi may yegg si fekk fa benn tubaab doon directeur technique ñetti weer laa def ak moom mu libeere ko pour confirmer ma pour ma doon directeur institutionnel mu doon ki nga xam ni liggéey rek la xam ci loolu la mos a amul waxtu bu mu dul nekk usine deux heures trois heures du matin quatre heures du matin pour ànd ak ay collaborateurs am di leen coacher pour relever des défis benn défi bu ma frappé boobu en 2004 la bi ñuy def modernisation moulin bi tubaab yi ñëw loolu ñoo ñu jaay équipement yi liggéey bi nu bi nu néew buñ ko xaymaa mënul jël moins de soixante jours ñaari weer li ma dee ci xam nga soixante jours moom buñ ko tëjee mooy pratiquement liggéey bi yàqul mënul ne lii fexe leen ba maximum ngeen def ko trente jours tubaab yi ci seen bopp ni loolu mënul ne mais bi ñu yàlla kàttanale ak taxawaayam liggéey boobu ci vingt cinq jours lañ ko mën def ba tubaab yooyu ci seen bopp ñoom ñoo dellusi si naan yàgg nañuy liggéey Europe Afrique mais record bi ñu mel ci liggéey bu ñu tooy mosuñu ko am fenn pour wan la rek ni manager hors pair la woon ku gëm boppam ki nga xam ni frontière mosul am ci kanamam limite mosul am ci kanamam day fexe tout le temps nu mu pousser frontières yooyu nu mu pousser limite yooyu moo tax tey jii nii euh, moom moo njëkk dugg comme sénégalais ci minoterie maanaam wàllu def defar farine boobu ay tubaab rek ñoo ci nekkoon Grands Moulins ak Moulin nag te taxawaayam bu positionné NMA moo tax sénégalais yu bare fekk si ko ci loolu bi muy dugg ci loolu ñu ci bare dañ ni woon lii dina jafe sénégalais réussir mais mu def ko défi yàlla may ko ci ndam ba tey jii nii. benn ci ñaar ñooñu doon tudd boobu mu ci doon dugg muy Moulin nag da ko mujj racheté en 2015 mu bokk ci groupe NMA 2005 tamit mu jënd par sam mooy ñuy defar pat alimentaire mu dugg groupe NMA donc nga xam ni daal capitaine d'industrie bu mag la nit ku généreux tamit ndaxte amul benn famille religieuse buy xewle Sénégal te dugalu fa loxoom wala indiwu fa ay produit am gis ngeen fan yi ñu jóge ambulance yi mu doon maye fépp ci ay hôpitaux yu bare lépp pour dimbale askan bi ba ci loolu sax projet bi mujj moo doon hôpital international de Dakar bi nga xam ni moom la buggoon taxawal ànd ko ak ay médecins spécialistes ndaxte jàppoon na ni Sénégal méngoo a am hôpital bu am plateau bu relevé ba nga xam ni lépp lu ñuy dem Europe di ko fa wuti ci paj plateau bi ni am fi mën ko régler loolu ci projet am la bokkoon yàlla na ko yàlla mottali ak jàmm gis ngeen tamit tey li ma marqué mooy bi ñuy jógee fële point E benn handicapé ñëw ci man jox ma numéro ma daf noo yàgg jàppale monsieur Amar bus bi nga xam ni sax moom la ñu utiliser tey moom moo nu ko moom moo nu ko jox loolu di ay témoignage yu rëy li des nag ñun ay jullit lañu mooy ñaan ñaan fi mu jëm gënal ko fi mu jóge ñaan mu dajeek njéggal ak yërmande sunu borom te mu xare ko ci àjjana yi gën a kawe ñu ngi leen di gërëm di jàpp ci loo téye ci nit ki inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci suñu borom lañu ñu jóge ci moom la dellu sëgu daaru yi dalu na tey gan goo xam ni ràññee nañ ko ci yoon wi nekk suñu mbokkub taalibe woyof tooy baax lool tabe lool ci ñi nga xam ni moo leen tane mu di leen di leen dimbali nekk kilifa entreprise bi nga xam ni ci gën a màgg ci Sénégal la am la bokk tey ñoom ñëpp ñu mànkoo maasewoo bennoo ñëw gunge ko ci këram gu mujj ci këru dëggam kon ma jàpp ne ci jikkoom yooyu ca woyof ga ca tabe ga ca taalibe ga ca gëna muñ nga boo ci jàpp benn bu ci nekk rek mën na ràmb doomu aadama ca jullite ba ca nekk taalibe Cheikh Al Khadim ba boo boolee yëpp nag dañu daal di am yaakaar ci moom ñaan sëriñ sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiiru mu nekk suñu làmmiñ ci Cheikh Al mu jottali nu suñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu dénk ko Ahmed Amar gannaaw loolu yàlla yërëmal ñu ko te jéggalal ñu ko ñu dénk ko njaboot bi mu bàyyi gannaaw mu teg loxoom ci ñoom teg loxoom ci entreprise bi ñay liggéey ak moom ak ñi nga xam ne ñoo ko yéene jàmm jërëjëf faatu ci at mu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semaine kam loola jóg na ci saw fam ba dangay faatu ku denc téeméer te bis boo romb teggi dërëm jeex ga dalay bettu farlul ci ibadaati yaram yi ngay konta kay foona ka raaya ka diw suuf koy mu jaag saxi ginaaw faatu moo teemaa jóg dénkaane waat fàttali waat te soñña waat ndax noo ngi dem te dun dëppaat amaana dig ba jigana tol na ñu bàyyi wutu woon coñu ñu wuute tol ñu ñun koñ na ñu bàyyi xel ñu woon yàlla dogal ba yegsi na bakkan dafay xëy ni xuree te lum la fekk ngay mébét moo xam mu jag mbaate jagul fu dig ba yëg see sotti